Ya Allah Ya Allah Lo ci ñaan may la loo ci jéggalu mu baal ci la ngëneel yi tàbbee shahr Ramadan Ramadan غدا يا حبيب يا حبيب رمضان. mooy dama ñëw bii rek sa yaay expliqué ma ne temps yaa ngi gérer sa finance ah. gisoo ma nii maa ni nga ko gérer baax na si ah? mm, ma gën a xam. Ah, non non ana sëñ bi maa ngi si mi ngi si jàmm alhamdulilah mi ngi gis nga ko ñëw rek booy. waaw mm. ah, muy métti loolu ñuy bi nag. waaye gis nga temps yi moom mi ngi xaw a sedd. mais moom ñu gis nga moom Sénégal dafa tàng mooy loolu. tàng gi nii. naa ne dana métti de. ii sax la def trop sax koor sax ok waaye nag booy gën a la góorgóorlu. Mhm. ndax euh, taaru jigéen sëy la. Mhm. te jigéen amul lu dul sëy. lépp loo mën ci am rek sëy moo ko mhm. kon la gën a góorgóorlu. gën a dimbale sëñ bi. dañ ko jàppale di matale. di matale bu baax a baax a baax ay ay bëggam. rawatina si koor gi nga xam ne day métti lool lool lool ñu génn liggéey yi sonn war a wàcc. xam nga. Mm-hmm. kon yow rek yaa koy motu. Mm-hmm. loolu moom tënkee loolu moom def naa wóor naa ci. waaw dama fàtte temps booy tamit nga rek sama sëy moom mooy loolu. bu mm-hmm. ko sëy bi dafa bette. te xam nga rek yaa ma gën xam ni nga ko waxee. taari jigéen moom sëy la. kon boobu nu may mënti def lu dugg euh, sama néegi sëy loolu mënti gis àddina néegi sëy daf koo gën. maa ngi dikk def balaa nag dina tàng. mais tamit nag bul dem. wuy ma xam nga ne si koor nekk. naaj bi fii li muy tàngee boobu. waaw léegi nga dox ba ñëw ba fii nag doo toog léegi. tey doo toog ba fii laa yéen. waaw mais toog nga yow tamit nag. waaw wala ngaa toog ba ci kanam meneen naa la. waaw. xam naa ne nag sons après nga tàggoo ba ko. sons waaw ah, incha allah. waaw d'accord amul problème incha allah. waaw ah, mais mën nga toog ba ci kanam. Ah. waaw maa ngi si jàmm. yaa ngi jàmm. maa ngi si jàmm. kër ba pare di photo bi. salaamaaleykum. kenn xamul. ah sëñ bi. foofu. ah moo fàttu ni. maa ngi si émission yi ma euh, ah wax nga dëgg. Touba TV ñu ngi seer baax a baax a baax. ma rawee rek heure bi TV. ma benn jot rek ma daal toog man cee ah. TV ma neex Touba maanaam doo seetaan Touba TV ba am ci loola naqare. diine diine rek. diine rek diine rek moom kay seen. waaw kay. kon yow yàgg nga fi. ñoom ne jullit gi rek lañ ñor yàgg fi. waaye def naa fi diir nag kon yow yow xew-xew yi amoon ci roq bi yëgoo. dafa am lu xew ah roq bi amoon nag riiroo sànq de. ah ku koy nangul maa koy nangul ji kay na fi ñun kay. waxuma loolu yow yaa fii fii fii fii. fii de xanaa yàgg naa fi. ah asan bi mën ngaa mën de. kon na yow ku baax kër gi daanaka li nga fi toog amul. ak su néew daanaka. abariwul ah. ah, njariñ de lu ñu bëgg a wax lu ci xew soxna mii ci kër waaw lan fekkante ak benn waay bu góor fii ci roq bi xaw ma lu ñu doon waxtaane ko def def gi nag xam naa ne moom bu kii yéen yàggul waaye kalte kalte ñoom métti woon na ba lëkkaloo geeg yooyu yëpp amoon sax maag mbay sàppar mii noo ci teg suñu bët waa ji rek génn na surtout weeru koor fóonante weeru koor ramadan dafa ñaw yow nit ngay ram di daan yow loolu c'est pas normal dabari jàmbur sax boole dëgg li yow caane am na jëkkër ah, waa ji kay moom mattum sa war dëgg la bu baax jërëjëf waaye yéen de yéen a àttal seen doo waaw ñoo gisal suñu bopp nag. xam nga waaye waaye bu defee benn def ngeen fu ah ndax yéen da ngeen benn da ngeen a jëw leneen li ci des mooy li ngeen wax tegu leen ci seen bët te koor jii ñu naan koor gi télé yi di def ay émission dëgg la ñi ngi def tafsiru xuraan. wallaay kilifa fay jaar fi jàngale fi bind ba fi lépp rek ngir ngeen mucc. waaye nu ngeen di mucc tax bu amul buntu ñu cay defee dara. déedéet du am dara de. kañ ngeen di pare pour xam seen borom kañ ngeen di pare pour pare ci si ak mbon raxas ko ci seen xol yi seen jëmm yi koor gi ku ci setul dootoo set ci dara waaye yéen a ngi tuumaal nit tuumaal teg ko tuuma joo xam ni wallahi azim benn def ngeen ko ñàkk ngeen ci ngor te ñàkk ngeen ci seen dund ndax bu ngeen amoon daray ngor nit ki dundal di la toggal di la yàkkal di def lu nekk doo jël tuuma ko teg même boo xamaloon ni ñaaw soxna ko sutura bu ngeen amoon daray diine du ngeen wax loo xam dara réew ngeen ci. kon lii ngeen def mbay sàppar mooy ma wax ko sa waay rek. Eh, eh, baal nag loolu wax nga bëgg caa génn ñoo ko waxandoo man ak yow nit nit nit du gaaw a reculer ñoo ko waxandoo man ak yow baal loolu wax nga tuumaal ma bu tax nga nga sa loos wi waaw. man daal li ma ciy teg dem leen ngeen jéggalu ndax yomal xiyaam kat. nga tooñ suñu borom nee na yi lu mu réeree bay laal asamaan bul bul naagu ci ni naa la jéggal ah waaye la fay taqal nit ñi ëllëg ak li leen fa yàggal mooy tooñ dañuy tooñ seen diggante ak seen morom jaam ñeeg jaam ñi waaw jaam contre jaam weer nit ci sàggi suturaam tuumaal yor sa téléphone ne ci sa ruq di saale ku la ëpp ku la mag saale kilifa kenn amatul kenn éduqué ku kenn lu ñu wax waaye mu def lu leen neex def nag waaye lu ngeen def gis ko ndax ku ci nek di nga wéetu suñu borom bay akane mom yow rek la bindu mhm. té wax yalla ji mën leen ko démontrer ci ay wax de li yalla wax bind ko ci téere kay ki kay dara ya dé borom mom dara metti torop mom fi mom man day tit man day tital na sa bokal na ba torop motax may jéggalu ci weer bi di ñaan suñu borom mu jéggal ma te jéggal bépp julli amin amin waaye nak sabab du leen di leen bàyyi ñaawtee fi dem leen ha jéggalu loolu dong ko man a raxas tuub gi dama may dama lay yabal rek dama laa yabal waluma daga moom yàlla dogal na leen wax déggu ko déggu ko kay te astaghfirullah moom yu saf sap waaw kay waay dégg ko waaye sa ñaari wax nga wax ni sa ñaari mag yi ku ci nekk raqib ak ati lañ lépp waa raqib ak ati man lu tax du gis man na raqib ah, ati bis boo demee ci biir hmm. bàmmeel di nga xam ne lépp dëgg ci yàlla sunu borom bis booy dund di dund lu la neex hmm. ba xetu ndee ne la carax ëpp laa def boobaa di nga xam ne lépp lu ñu la wax dëgg la dëgg la de kon ay jullit ngeen jàjjuwaat leen ngeen jëm seen borom te ngeen tuub ah, te mooy tondi ku tooñ seen borom tey da ngeen nekk ci ruq hmm. jël seen téléphone tooñ ku leen neex yaakaar ni raw nga de ci àdduna waaye rawoo ci te ku ci dugg ci bàmmeel di nga ko rëccu ak koo mën a doon nag ak koo man a yaakaar ak ku la mën a jur ak tooñ kenn mënu cee ngemb kenn koo tooñ moo la mën a tuubal moo la mën a jéggal hmm. kon caane faaw nu jéggal ko kon ñu dem ne ko jéggal nag yooyu